salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu bokki jullit yëpp di nuyu bokki taalib yi di nuyu sunu bokki bopp yi teewe jataay bi muy sëriñ ak sëriñ Jaxate mu sëriñ Seex Jaxate ak soxna May Muna Mbàkke ak sëriñ Abo ak sëriñ Khoudous mi teew ñu nuyu leen gannaaw loolu nag ñu jiital ci nuyoo bi sëñ Muudu Mbàkke mi nga xam ni moo taxawal lii te njabootam yore ko parce que yéenee taxawal dundal ko ngir lépp jëm ci liggéeyal sëñ Touba rek ak gën leeral mbirum sëñ Abdou ak yaatal ko si site bi nag ñu ubbi ko mu sakk woon nag ci nun ñi tey nu ubbi site bi ci màggal gu tedd gi ñuy dëgmal muy màggalu Cheikh Souhaïbou doon donte defuñu ko ci woote ko ñu dara jaale ko bis bi ubbi ci site bi tudde site bi it Limaahin Basirin ku ne xam na ko muy laxat jaakum gi nga xam ne moom la Serigne Touba tënk xaside googu tur bi ngeen tudde site bi nag muy Limaahin Basirin yàlla dafa def it muy xaside xaside ñëpp la waaye nag xaasatan xaside Cheikh Abdoul Ahad la moo tëj fulkul masoon itam nag li may wax ni ñaari malaaka yi ma tiim ñaari seede mën nañ seede ni li ma ciy nettali ci li ma xin Basiir moo ma ko nettali ci ñu boppam. bisu korite ci waxtu takkusaan diggante takkusaan ak timis mu ne ma fekk bind naa ko ay yoon yoon jox ko ko mu ne ma xasida ak laxat jaakum ñaata bayit la fekk li ma koy bind lépp nag taxutoon ma xam bayit ñaata la. ma tàmbali koo see mu ne ma mu ne ma mu tàllal loxo càmmoñam ni ma bindal Abdul Ahad ni ma wàcce ko ma tàmbalee bëgg a seet mu ma matu ko sax téeméer la ak ñaar fukk. sama mbir la ko sëriñ bi dëppale loolu ci làmmiñu boppam moo ma ko wax te boo demee ba ci biir xasida gi am na yu sëriñ Touba tudd ci biir xasida gi yoo xam it ci jamonoom la taxawee muy université bi bokk na ci tey bil muntaxaa lii banal xudduusu madrasatan bihaa yeesoolul asa wal jaxdu wal kabadu am na ci amaat ci biir xasida gi itam moom bi mu fi nekkee ci biir xilaafaam sëñ Touba di ko liggéeyloo l'islam bépp bépp bépp bépp bépp womatu nañ tege ci loxoom bi ndax képp ku yor tarixa ci Sénégal fekk si nga ko fi yandoog moom mu teral la loolu it boo duggee ci biir xasida yi da nga ko ciy fekkaat simaamu wara asri radallaahi fii yadi jooju ñëw na ci waaye nag da caa teg ni simaamu sawil islami fii ha loolu am na ko ci jamonoom lépp daja na ci Cheikh Abdoul Ahad ci jamono jooju boo duggaatee ji ba ci xasida gi ba ca jeexlu ba tam nga demaat ca maa ngi ko tëjee mallaktu xayra salatin bi salaami liman huwal wasilatu min baaxin huwal ahadu firnde yu leer nga kon te loolu man ci làmmiñu boppam moom moo ma kon bu ngeen jëlee site bi di ay sëti sëñ Abdou Lahad def ko yore ko di ko sàmm ngir bëgg a sàmm noonu noonu Cheikh Abdou Lahad ak di ko yaatal ak di ci waxtaan ak dindi ci kumpa ñi nga xam ne xamuñu woon Cheikh Abdou Lahad ñu xam ko yàlla taw fee xëy ngi ñu site bi jóg ñu tudde ko Limaahin Basirin kon loolu lu Cheikh Abdou Lahad ànd la lu tege ci yoon la loo xam ne lii bu ngeen doxee ba ca kanam da ngeen xam la muy jariñ li ci am solo nag ngeen taxawal ko ko te tàmbali liggéey bi te ànd ceeg fulla ak ak pas-pas ak gën a tasaari mbirum sëriñ bi ndax Cheikh Abdou Lahad musa wane ci boppam dara nekk na fi ba jóge fi ndax dafa waxoon ne du leen wax mukk ni man Abdou Lahad nee naa sëriñ Touba nee na rek laa leen fi wax musta wane ci boppam dara ba nu mu wàccab liggéey tey jii nag ñun ñii mu bàyyi gannaaw surtout yéen sët yii nag yéen a war taxaw ngir wane mbirum sëriñ bi ak tasaare ko kon loolu ñu ngi leen ciy gërëm bu baax leen ci soññ itam di leen xam ni ñu ngi ci seen wet lépp lu leen ci lënt rek bu ngeen nu gisee lan ca war a def incha allah daan ko def. bi loolu jàllee nag bis bu tedd bii nga xamee ni moom moom la sunu kilifa gi gane àddina ngeen bëgg ko ci jëkk a def muy Serigne Souhaïbou moom yàlla dafa def ci weeru koor la gane àddina muy juróomi fan ci koor. wàccaat ci weeru koor ci Laylatul Qadr. kon mbiram mépp weeru weeru koor la. ci ngeen ko bëgg a tàmbalee li ko tax li ko tax gën am solo. si Abdou Lahad daf daan wax ni sëñ Touba lépp lu mu daan bëgg def si weeru koor la koy def toppale bi néeg sax bu ko daan bëgg def day néeg ba weeru koor dikk mu door ko caa def kon nag weeru koor wi ngeen ci taamu rawat na jagalee ko bisub sëñ Souhaïbou loolu bu ngeen ko ca defee eh, li ñu naan axtaytal xaw sa bariha li ngeen doon dàkk daal jam ngeen ko loolu man natta bi la moom kilifa gi ngeen koy def si moom nag waxtaan ci moom ak waxtaan ci Cheikh Abdou Lahad benn rek la ak waxtaan ci doomi sëñ Touba yëpp benn rek la mooy ki nga xam ne benn seede rek la ñuy indi boo xam ne moom ngeen di ubbee site bi ñu jëkkee ko seede bi ci gën. mooy mbokk wax ko ba ca gënaat. koo xam ne kii sax ab tariixa bokkoo ko moom. am na ko. tey seede bi ma ciy nettali mooy ñaari seede yoo xam ne bu ci nekk am na ko te ñi ko ñi ko ko ay kilifa lañ ci biir réew mi. te bokkuñu woon sax tariix mm-hmm. bu njëkk bi mooy El Hadj Abdoul Aziz bi soxna Fat Jaxate wàccee liggéey. mu jaalise ko sëñ Abdou Lahad dafa jàll si kër sëñ Souhaïbou fa nu fekk ba mu ñëwee bi ko sëñ bi recevoir ci saal bi daf ko daf ko daf ko wax ni ko fu ma la laajtee rek ñu ni yaa ngi ci jàkka ji yow de wóor na ma ni ñu suñu borom di wax ni allasiina in makkannaahum fil ardi aqaamu salaata sakaat a sakaata wa amaru bil maxruufi wa nahaw anil munkari yow mii ca nga bokk loolu doy doy doy na seede ci àddina ak àllaaxira ci ci ci borom xam-xam di kilifa diine gu mag te bokku benn tariixa mu seedeel la ko. ndax yàlla kese rek ko waral. ba ci toppaat El Hadj Adi fii ci Fass bi sëñ Sonia bu taarif taarifee xoratul ni bi mu yër ko gis ko daf ni ki taalif téere bi de mënuma ñàkk a wëlëranteeg moom. mu jaar ko ci suñu am sam daaru musti mu yëgal ko sëriñ bi mu ñëw seet si ko kere ba mu dikkee ci kër gi la yàndoo. sëñ bi terale ko woo sëñ Abibu Mbàkke mii di borom xam-xam mu teew mu yandoog moom. mu woo sëñ Cheikh Say Elimani Daaru Xudus boole ko ci mu moom. woy Serigne Assane Boussa ca Gédé mu ñëw yandoog moom. boo ñu defee teraanga ja ba waxtu yooyu jot ba takkusaan. Serigne bi woonu nu ñii di doomi mbokkam yi nga xam ne moo nu yoroon ci biir këram. nu ñëw nuyu si El Hadj Diaty. kare bañ accès ban toogee kenn ku ne jox ko loxo ku ne la mun la kuy sa wajur kii doomi sëñ Abdou Lahad kii doomi sëñ Abdou Khadre kii doomi sëñ Diwa kii doomi sëñ Mouta Nangam. mu ne bi de la ma doon dégg ci bi ma accès loolu laa jëkk a gis. <laughs> sa mbokki bopp yii fab seeni doom jox la <laughs> jikko yu nekk ci yow ñu doyloo ko moo tax ñu fab seen doom jox la ko ndax koo nawut jikkoom doo jël sa doom jox ko ndax su ko yaree boppam la cay def daal ni sëriñ bi nag da li nga ma terale teraanga la teraanga la joo xam ni deesu ci suur ndax terale woo ma ñam da ma maa teral ci xam-xam ndax ñii nga ma booleel tey ji ma yendoog ñoom muy sëñ Abibu moomu ak sëñ Cheikh Sey ak sëñ Assane Boussa tàngay naa fi ci xam-xam loo xam ni su ma yëndawutoon ak ñoom loolu du ma ci àgg ne ko nag ñun ñii nag mu dénkunu daal ne yéen ñii nag di njaboot gi tey seen bàyyi yi baax nañ ba noppi kenn na tabliwu ko yaa baax bàyyi nag jege na waaye yaa baax moo gën a jege fexe leen ba baax ni seen bàyyi yi mel wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu